mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki yaakaar nu ñu ci dañu bàyyi xel ci xibaar vision ak Dieng Saala TV ñoo ngi amati mbégte kontante ci bisu mag bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku Serigne mbakke Madina ñuy ñaanal baax sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbacke mi nga xam ne moom la ñuy xoolee jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha ji mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal ko itam Serigne Cheikh Mbacke Madina di xalifa Serigne Mbacke Madina ak mbooleem njaboot gépp mbokki nag ñoo ngi fii ci kër Serigne Mbacke Madina gu mag gi jàkkaarloog jumaay Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ji ci bis bi nga xam moom dañ koy fàttaliku waaye itam ñu toog ak kenn ci ñi nga xamante ni ñooy ŋànk commission culturelle bi di Serigne fàllu Ndiaye moom itam ñëpp xam taxawaayam ak pas-pasam ci liggéey Seexul Xadim Xadim Rasoul waaye itam ci biir kër Serigne Mbacke Madina itam mu am ci pàcc bu am solo boo xamante ni mi ngi ko ciy dox ñu ngi koy ziar baax a baax di ko ndokkeel di ko ñaanal Serigne fàllu ginnaaw nuyoo yeeg ziar yi nag ñu bëggoon rek nga dikkal ñu ci tënk ci jëmm ji ñuy fàttaliku tey mooy kan mooy Serigne Mbacke Madina moo xam nga ñëwal ñu lenn ci ay jikkoom waaye itam lenn itam ci ay dig ay liggéeyam waaye itam taxawaayam ginnaaw sëñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma ci euh, Daaru Khoudoss waaye itam pas-pas bi nga xamante ni tey sëriñ Cheikh am na ko ba liggéey bi fu ko sëñ ma dina bàyyi woon sëriñ Cheikh yokk ko yaatal ko tey ba soo ñëwee fii xam ni ku yokkul da ngaa wàññi. jërëjëf euh, sëriñ Moussa Diop ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar. waaye nag di nuyoo ko siyaar mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci Xibaar Vision ak Dieng Saala TV <coughs> ni nga ko waxee nag léegi rek muy danga tudd jëmm joo xam ne histoire lum xat-xat dina ko bàyyil paas bu nga ko bindal ndax sudee dee cib juddu mate na ko sudee dee njàng muy xam-xam mate na ko waaye nag su dee ci ay jikko yu rafetam mate na ko sëkk loolu nag tax na ba kon Serigne Mbacké Madina fawu rek histoire di ko fàttaliku fawu rek histoire di ko bàyyi xel Serigne Mbacké Madina nag doomi Cheikh Mamadou Moustapha la Cheikh mu Moustapha nag ku ko wax xam ne mooy jëmm ji nga xam ne moo njëkk a wuutu sëriñ Touba te mate ko sëkk ndax yoon wi su awee ci doctrine bi mu aw fii mën nañ koo gërëme sëñ Mouhamadul Moustapha ci taxawaayam di doom itam nag soxna Aminta moom sëñ Dame Abdourahmane Lo kon suñ tuddee sëñ Dame Abdourahmane Lo ci yoon wi itam ñëpp xam nañu lan la doonan ci yoon wi la ko géwél boo xam rek ku xamu araf ci Mbàkke yaa ko ko xamal kon sëñ Abdourahmane Lo moo jur waajuram bu jigéen moom sëñ Mbàkke Madina mu gane jamono nag ci Touba ci li siiw xam ne loolu lañu ëpp wax ci waaye nag ñoo xam ne Sëriñ Touba radiyallahu anhu moom moo ko jox aw tur ca njaarim kon loolu di wane rek ñaari pàkk yi gën a tedd ci sëriñ bi wala ñaari pàkk yi nga xam ne bokk na ci yi gën a tedd sëriñ bi ñaari pàkk yooyu ñoo seq sëñ Mbacke Madina mu pare ca lool nag sëñ Moudou Moustapha fa ñu war a jaarale asgor war faa jaarale ab julit war faa jaarale ab taalibe mu jaarale ko fa te mooy jàngal ko alquran ba mu wattu ko waaye jàngal ko ab xam-xam itam ba mu géeju ca loolu nag ba mu ko defee ba pare da caa boole nag léegi yar ko yarin wi ñu xam ci yoonu murit ba tax mu doon ab murit saadix boo xam ne kenn wéranteetut ak muritam kenn wéranteetut ak taalibeem ndax loola képp koo xam ne mas nga fee nekkal xadimal Moustapha def na la kilifa di roy ci yow la muy bay mu yëkkati ko di la ko jox tey saayo yoo ko yittewoo rek mu teew ci sa kanam ba tax na jëf yooyu mu doon jëf ñu baree bari ci njabootu Cheikhul Khadim gi seeral nañ ko murid saadix googu ndax wax nañ ne sëñ Fallou koñ ko njëkk wax ne sëriñ mii kat ab murid saadix la te it Cheikh Abdoul Ahad ci boppam waxal na boppam ne fekk boobu mooy ngan googu nga xam ne moom la defan ca euh, beleel te ñu baree bari fekk ko fa te ka doon wër dal ya ba mu demee ba nettali sëñ Abdoul na mu fekk sëñ Mbàkke Madina mu wax ko ne ko xanaa xamoo ne man su ma doon bindaat sama bopp ni sëñ Mbàkke maddina lay mel loola sëñ Abdou Lahad moo ko ko seereel kon loolu da lay won rek pas-pas bi mu amoon ci yoonu murit bi ak taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci yoonu murit bi loole nag ba mu amee da caa boole woon nag jaamu yàlla ak liggéey ñëpp miin nañ ci ne sëriñ ma Madina borom alxuraan la mu jublu woon ci alxuraanam jooji du lenn rek lu jëfee ndigalal waajuram ba waaye jëfee ndigalal yàlla jëfee ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax wax na ne sëñ Mouhamadou Moustapha da leen a masawoo moom ak moom ak moom ak Serigne Cheikh wax leen ne na ngeen fexe ba alxuraan saf ci seen deret ji loola nag nee na taxan ñuy jàng alxuraan lu bari waaye nee na dafa dem ba xalaat ne sëñ Cheikh daal jamono fi mu toll ak yitte yi ni mu baree ci moom jàpp na ne Serigne Cheikh mënatut a jàng alxuraan nam ko war a mën a jànge mu wax ne kon su jàngatee ba pare na jàngale Serigne Cheikh loolu moo toonan bari jàng ak alxuraanam googu ci mag yi kër gi euh, mi ngi dund ba léegi yàlla na ko yàlla gën a yokk muy Baye Cheikh Seck nee mas naa ko laaj ne ko man de dañ maa ne ma yow bala ngaa ubbi rek di nga jàngab kaamil ba alxuraan nee na ma ne ko ah Cheikh xaw ma noonu la demee déet de waaye saa yu ma defu dara rek maa ngi ci alxuraan kon loola da lay rek bëgg gu bëgg yàlla bëgg gu bëgg yonent bi bëgg gu bëgg alxuraan loolu nag ba mu ca pare dafa euh, topp ci sëñ Mourou Moussa ba gisatu ko. bi mu ko gisatul Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma ñëw mu topp ci moom mel ni mësta na gis sëñ Mourou Moustapha te li ci gën a doy waar mooy digganteem ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma am nañu wax ne ayeg bis daanaka rek la mooy sëñ Cheikh li mu ko mage ayeg bis rek la waaye soo ko fekkan ci kanam Serigne Cheikh da ngay jàpp ne Serigne Cheikh kenn xamut ñaata at la ko mage waaye loolu lépp taalibe ga euh, rek la loolu nag taxan digganteem ak Serigne Cheikh nag. doon diggante bu rafet lool lool lool ba yéeme na ba mag ñi doon ànd ak ñoom sax am na ci mag ñu daan ànd ak Serigne Cheikh dañ daan wax ne Serigne Cheikh saa yu waree tukki génn réew mi rek su fa sëñ Mbàkke ma dina nekkee rek ñu xam ko na day dem ñu ne ñu lu tax mu ne saa yu tàllalee loxo yi ne sëñ Mbàkke ma dina ñaanal su boobaa dina génn réew mi day tukki waaye su tukkiwul rek nee na sëñ Cheikh ay ñaan ñu euh, tàqali ko kon loola di euh, doyloogu ko sëñ Cheikh doyloo woon itam te euh, doyloo googu sëñ Cheikh nekk na ndakaaru sëñ Mbacke Madina fekk ko fa fekk am lu fa sëñ Mbacke Madina doxee rek mais ba sëñ Mbacke Madina nuyoo ak moom sëñ Cheikh dana ñokket bàyyi ko mu toog mu sol mbubam génn te néeg ba mu ko fekk la ko bàyyi mu toog mu sol mbubam génn waxu sëñ Mbacke Madina fenn laa jëm nee ay ak bis am na ko fa sëñ Mbacke Madina toog foofee di ko xaar ba mu dellu si ci nit ak doomi baayam kon loolu ab joxoñ la boo xam ne sëñ Moussa wax dëgg yàlla Euh, nit ñi war nañ cee euh, bàyyi xel bu baax a baax mu doon nag ku liggéey lool ndax tey bokk na ci euh, daara yu baree baree bari ci yoonu murid yoo xam ne ay daaraam la te it yàlla séddewaat ko barabi Serigne yi nga xam ne Serigne nekkan na ci am na barab yoo xam ne ci loxoom la nekk mu mel ni kër gi tey gii nga xam ne sëñ Modou saa bi muy tabax jumaa ji la ko tudde woon sanc daan fi ñëw ngir gën a jege liggéey jumaa ji bi mu fi bàyyi ko xam nañ loxoom la ne donte it ab rafetal moo tax mu ñëw ci loxoom ndax la tax mooy taayif ci boppam moom la sëñ Mbàkke Madina mooman sëñ Cheikh ñu gis ne moom ku bëgg taayif la am mag ñu ko ne a ah, sëñ Mbàkke Madina di soo ko laajee taayif mu jox la ko ba mu ca waxtaanee moom mu jox ko taayif sëñ Cheikh moo mën fii sëñ Cheikh wëlbatikuwaat jox ko kër gi kon loolu nga gis rek ba tey seen ànd bu rafet boobu liggéey boobu nag mu doon liggéey tax na daara yu bare bari mu gor lu mel ni Madina ah, donte ci jamono Cheikh Moussa la waaye gis nañ ne ci loxoom la mujj lu mel ni Bombali lu mel ni Tun lu mel ni tey ah, ah, Jamweli ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba ñu demee it ba fii di ci yéen Jolof nga xam ne bi fi Serigne Touba jógee ca 1927 ba 1981 kenn jaaraatu fa kenn te it la gën a doy waar mooy wax nañ ne tubaab yi ba sëriñ bi génnee rek dañoo taal kër ga néeg yëpp lañ taal dara desu fa loolu ñuy dox di dox ba sëriñ Fallou Asta Dieye ah, daan dem di siyaare ji euh, ka nga xam ne mooy soxna sa muy waajur maam Thierno muy soxna Fatou Issa ba mu dem ba xelam ne yar na ci Thiène Jolof mu jàpp ne Thiène Jolof daal dañ ko war a euh, beesalaat ba mu ca waxtaanee mag nag mag ma da ko ne ah, yow day duñ la jox ci yéen jolof sëñ Abdou Lahad du la ko jox waye amna ko yeena bokk wàcc way ci soxna ci sa mama mama ma so ci deme so waxtane ak mom su deme ci sëñ Abdou Lahad mu jox ko ci yéen jolof nako demal sëñ Mbàkke Madina bam mu ñëwee sëñ Mbàkke Madina wax ko ko sëñ Abdou lad jóg sëñ Mbàkke Madina jóg dem ci sëñ Abdou lad mu ne ko ah sëriñ loola day alali sëñ Tuubaa waye yow alali sëñ Tuubaa ku la ko jox wàcc loolu motax tax sëñ Abdou lad yëkkati ci yéen jolof jox ko sëñ Mbàkke Madina mu sanc ko nag 1981 ba mu koy sanc nag tey xalifaam bii nga tudd nii mba xay na mën nañ ñoo dugge loola ca moom moom la fa yebal wax nañ ne coussin oto fanaan na ca fukki fan ak juróom-ñaar moom sëñ Cheikh Bombali mii nga xam ne ci coussin oto ba lay fanaan diirub sanc bi ba ñuy gor ak yëpp mu nekk fa fukki fan ak juróom-ñaar yoo xam ne génnut coussin oto boobu fa lay fanaan kon loolu nga gis ne moom itam ak taalibe gañu jiyeen ca moom ak yar bañ jiyan ca moom loola la xoolan foofa taxawaay ba sëñ Mbacke Madina taxawan tey sëriñ Cheikh taxaw na ko lu mu ca mën a yokk yokk na ko mi ngi dimbali nit ñi mi ngi jàppale nit ñi lépp lu mu man rek mi ngi koy def ci yoon wi kon sëriñ Moussa ñu delloo la kàddu gi. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadal Ndiaye euh, waxtaan wi am na solo kawe nañ jort itam macha allah xanaa ci tënk rek naaw bi mu toogee xilaafa ak Cheikh Mouhamadul Moustapha gisatul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde fan ma ndax wax nga ne dafa jëloon jox dugal ko ci bëgg ak Serigne Cheikh Mbacke euh, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom sëñ Mbacke Madina amatul nag bëgg diir li fi sëñ di nekk du daraam loo xam ne am na ko du lee kenn xam itam loo xam ne amoon na ko lu may euh, sëñ Cheikh rek la amoon sëñ Cheikh itam amoon ko ànd ak moom ci liggéey bu am solo boobule ginnaaw nag bi mu fi bàyyeekoo moom sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom sëñ Mbacke Madina mu dikk toog toogaayu euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim yëpp ban taxawaay la am ak yéen jéego jox ci tënk ñu soog a yëkkati jotaay bi jërëjëf jërëjëf Serigne Moussa lolay dey mag ñi ko fekke won ñi ngi fi ndax bay Cheikh sek mom mo la tuddal léegi nee bi Serigne Cheikh nelewé ba yofé jall mo wara dem bayti neena mom ak bayi khaliban ño and ak sëñ Mbàkke Madina ñuy ñett neena bay khaliban mo yor sac bi nga xamne ne def bagage yi neena biñu ñëwé néeg bi nga xam ne ci la sëñ seex daan dalal gan ñi di leen fa daje ak ñoom nee na fa la sëñ ma dina dem dugg nee na ñu toog tuuti mu laaj Baay Xaali ana bagage yi nga yoroon nee na mu ko ah, bagage yi day ca néeg bële laa ko yóbbu muy néeg bi sëriñ Cheikh daan ne nee da ko ne demal jëli ko xaali foofu néegu jàmbur la sëñ Cheikh neetu fi waaye mu ngay bàyyiwaat sëñ Cheikh ne néeg ba néeg sëñ Cheikh a mu ne foofu néegu jàmbur la kon lolu nga gis batay jëm mi taxaway bu mu taxaw digëntem ak Serigne Cheikh ci war ma bi fi Serigne Cheikh bayiko nak neena bay Cheikh neena ma bi mu ñëwé ba man set da no ñu daje mu ne len bi may dugg ci kër gi de ma ngi yoron limab xaalis nangam la ci xalaatoon nit mooy su ma kër gi ma defaraat ko waye dal dama teud ba sama xel dem ci jàkka ji nga xamne moom la Serigne Touba gise woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir ma defaraat jàkka jooju jàkka jooju nag laa bëgg ngeen jàppale ma ndax ñu xam fu mu nekkoon nee na am ñu ko limal ay mag diw de yaakaar naa suñ ca demee waaye nee na kuñ ci dem rek suñ ñëwee day wax ne wax dëgg di xamatut fu jàkka ji nekk nee na ba seen soxna su sant Cissé la ñu dem jëli fee gaar bu ndaw nee na bi mu ñëwee da dafa wax sëñ Mbàkke Madina ne ko jàkka ji de su doon toon nag nii sëriñ Cheikh Mbacke lii ñëwoon dëkk bi mën naa dem ba ne na fii la nekkoon waaye nag comme sëñ Cheikh lii ñëw ne ko xamatuma fu mu ne. waaye lenn de laa ci xam moom xam naa ne Serigne Touba jëli woon na ay tiwil ci yéen jolof te foofu ko suulan ca jàkka ja la ko suul mu ne ko kon baax na nee na ay fan mu nattulu jàkka ja bañ ko nattuloo ba nee na bañu daaj ba pare dugg ci biir ne ko daaj nañ de bunt bu ndaw a bayti bi sëñ Moussa. jàkkaarloog jàkka ji nee na fi la génn taxaw xool dénk yi ñuy daaj mu ne ah waaw daaj bi de baax na lool tubaarkàlla waaye dama bëgg nag ngeen ne diis rek ba may sëñ Ahmadou mais penc nee na ñu da ñu daaj yi lañ daajoon daajaat feneen nee na euh, bëti ba ñuy gas fondement boobu la ñu njëkk a gas ca jote tuile yi nga xam ne moom la Serigne Touba jëlee woon ñu xam ne barabu jàkka ji mi ngi kon ginnaaw Serigne Cheikh lim njëkk a def ci yoon wi mooy fexe. taxawal jàkka jooju bi loolu jàllee itam mboolem li fi Serigne Cheikh bàyyi woon lu mel ni bayteeg yooyu mu yee salaat kër gi waaye bi mu yee salaatee kër gi ba ba pare sëñ Abdoulaye da ko faa fekkaat mu doonaat beneen cër boo xam ne joxaat na ko suufas bayti si ndax nag nit ñi wax nañ ne mag ñi wax nañ ne Serigne tubaa kër googu senn soxna mosu fee dëkk bayti ay góor rek ñoo fi neen këram la goo xam ne senn soxna mësu fee dëkk ngir fonk gumu fonk bere bobé lola nak néna na bi ko sëñ mag ñi dañu ñew ne ko ah beuyti day wenn wanag a fi ne dañu xalaat nak defaraat fi weneen wanag boo xam su gan ñi ñewé euh yi bañ a xat néna na mu ne leen waaw waaye ndigal waw rek la len neex dina ci xalaat néna ñu toga toga tok ba ñetti fan des ci ñu dellu ci mom mu ne nañ wut am ndox rek tay taxaw wanag ya saa yu taqee ñu defar ko nee na ba sëñ Abdou Lahad ñëwee nag ba ñibbi lan woo ñu ñëw mu ne leen xam ngeen lu tax defaruma woon ak yee ñu ne ko déedéet mu ne suufas bayti laa xool-xool xaw ma fu fiy def woon ak man sëñ Mbàkke Madina moom la xool xool xamut fu ma fi def woon ak kon loola di cër boo xam ne jox na ko Sëriñ Tuubaa cër boo xam ne jox na ko suuf su Sëriñ Tuubaa doon dund cër boo xam ne jox na ko bayti kon ginnaaw loolu nag mu uuf mboolem njabootu Cheikh Mouhamadoul Moustapha gi la sëñ Cheikh doon def ci ñoom mu koy def ci ñoom fa mu leen war a féetewoo mu leen fi ak yar ak njabootam itam ci siraatul mustaqim ba jabo njaboot ak sëñ Mbàkke Madina gi koo fi fekk ni rek ne kat ñu yar la kon sëriñ Moussa ñu tënk foofu kàddu yi incha allah beneen. jërëjëf sëriñ Fallou Ndiaye euh, kàddu yi am na solo rafet na leer na itam njàngalam itam solo kon koku moy lenn ci dund ak jaar-jaari sëriñ Mbàkke Madina yoo bëggoon nañ ko séq jukki ko ci ak dundam ak i jaar-jaaram kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaanal itam mbooleem commission culturelle bi di siyaar itam mbooleem commission communication bi waaye itam di siyaar sëñ Cheikh Mbacke Madina ak mbooleem njaboot gépp mbooleem koo xamante ni nag njabootu suñ Mbacke Madina ga ñi ngi ñaan yàlla dolli leen tawféex bu baax a baax ndax àndin wi rafet na kenn déggul bur wi kenn déggul dara ñëpp ni teg ànd ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh itam nekk ci ginnaaw sëñ Ahmadou